jeune homme bi nga xam ne jàmbaar la ndaanaan la ñu koy gën koo ràññee si Wëlëwës Wëlëwës nag son vrai nom c'est Nala Nala nag ñu daal di ko ràññee ci Wëlëwës boo leen demee ci coin yi ngeen xam nit ñi dañ fay daal di nekk di féexlu da ngeen fay daal di fekk muy jaay ay infusion moo xam ataaya la moo xam thé la moo xam was la woo xam jinjeer la moo xam sax li nga xam ne mooy euh, bisaab donc nag tey dañu daal di ñëw fi nga xam ne mooy Médina euh, bërëbam daal di ko seet si moom nag dafa daal di am ay xale yi nga xam ne dañu daal di nekk moom biroom fii la nekk mais lépp fii la koy daal di defaree euh, bu ngoonee mu daal di dem ci place yi daal di fa tasaaroo moom ak ay élément wam di jaay donc li mu jaay nag neex na lool ba tax na tey dama ànd ak sama ñaari doom yi muy Mohamed ak Cheikh Sadibou ñu daal di ma gunge ñu daal di waxtaan boo leen xoolee fële fekk nañ fa rek ñi ngeen xam ne ñooy équipe am Ah, donc voilà sama gars yi yow tur bi nan la. Modou Seck. Modou yow fan ngay nekk. man nag cour eh, yow. daa mel ni xàmmee yow yow daa mel ni yaay bébé bi. Ibrahima Mbissa. Ibrahima Mbissa. waaw yow xanaa séeréer. waaw sama mbokk nga noo Sane. noo Sane. Mbissa. Mbissa nga Sane. yow fan ngay nekk. Corniche. Corniche ngay nekk. maa ngi ñëwaat yow nu tudd. Babacar Diagne. nan. Babacar Diagne. Babacar yow foo nekk. muy tamit yow tamit xàmmee naa la naka mu. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye. Ah. yow fooy nekk. pour des cassation. tamit ah, donc cassation daa mel ni am na bës daa mel ni fii benn jigéen la am naka mu. ça va nag dégg ngeen dama ko nuyoo nee ko naka mu. noo tudd. Khadija. Khadija daa mel ni da ngaa timide. non non timide doo nga yeew. yow patron nga de heure bi nga yeew. waaw gis na yow fan ngay nekk. kan man IFAN rond-point point université. yow dinaa ñëw ci yaw mais faaw ma jàll ne dugg ci biir. Ah, daal di xool ki nga xam ne daa mel ni moom moo géré fii. alors bi nan la. Euh, Aliou Diagne. Aliou dafa mel ni yow yaa géré fii di géré. waaw waaw waaw maa nekk fii ci boy waaw ma géré boy fii. d'accord bu xale yi génnee doo génn. Euh, non non non. fi ngay toog tout tout temps maa fii lay resté quoi. waaw euh, ndax fii ni des fois liggéey bi dina métti ou pas. waaw waaw liggéey bi comme d'habitude rek xam nga liggéey moom benn neexul quoi mais de toute façon dañuy gérer affaire yooyu noonu waay waay ci rek waay. si lan lan ngay jaay. waaw may jaay te citron à la menthe bi bisaab ak wes. nii ngeen koy waxee. waay dugub euh, bu dàq boobu sax. déedéet ni ni waaw après gars yi nañ la ko gën a. dinañ ma koy waay waay yow yaay VIP. waaw gisoo waay. damay ñëw si ku jigéen ci encore Khady merci beaucoup naa ñëwaat ci yow ci kanam peut-être donc dama gis bu ñu bu ma dajee xale yi cassation wala euh, corniche ba wala feneen rek dafa am lu ñuy waxee affaire yow mën nga ko est-ce que parce que mosuma gis jigéen bu ko wax nan lañ koy naa ko kay nan la. citron la amoon. <laughs> citron miel. ataaya bisaab. Uh-huh. wala wës. yow mii xàmmee naa la tamit yow nan nga koy waxee. si trois la menthe. teew gingembre si tom yel. ataaya bis sa boole wës. yéen ñëpp mën ngeen ko waxandoo leen ko ma dégg. si trois la menthe. teew gingembre si tom yel. ataaya bis sa boole wës. man lii faa ma jàng ko cher nee naa la ñii buñ jaayee rek day jaar parce que lii nii man moo attiré sama attention ci man ba tax na. dinaa dellu si waat bu may tëj mais damay daal di yëg ci kaw seen bos moo ngi fa moom naa laa moom mi nga xam ne moo créé entreprise bi bu ko defee rek Cheikh damay daal di topp ñu yëg ci kaw xool moom nu mu toogee ci jàmm moom dama laa seet si waaw ah, macha allah yëg si la jàmm dinañ gën a yaatal waxtaan bi incha allah est-ce que duñu toog après ñu waxtaan merci beaucoup voilà voilà chers téléspectateurs de la 7TV kon ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ba mu ngi fii nga xam ne mooy Médina daal di seet si un homme très courageux du nom de Nalla mais ñu gën koo ràññee ci li nga xam ne mooy Nalla Weuss wala Weuss du moins donc gis ngeen euh, ci ouverture ba xale ya nga xam ne moom lay liggéeyal donc mu nekk aussi ay xale yi nga xam ne macha allah donc dinañ gën a yaatal waxtaan bi fii euh, damay daal di ko nuyu rek mu daal di présenté wu bu ko defee ñu waxtaan lu yaatoo yaatu rek ci li nga xam ne moom lay jaay naa la nuyu naa. fay naa la soxna si maa ngi lay ziar bu baax a baax euh, di la dalal di la wax yegg si di nuyu ñi wax ni. merci beaucoup c'est un plaisir ñun tamit ñoo ngi lay fay bu baax a baax naa la followers ñu gën ko gën a ràññee ci loolu moom nag euh, boo leen demee ci euh, euh, ci coin yi nga xam ne nit ñi dañ fay daal di féexloo di fa lekk jën wala di fa doxantu da ngeen ko fay gis bu baax a baax boo leen ko fa gisul a gis élément wam yi donc parce que ku nekk ak point bi nga xam ne ak point bi nga xam ne fa ngay daal di nekk donc dañuy daal di ñëw ñu yaatal waxtaan bi donc nala wërs lan lan ngay jaay avant ñu ñëw ci naka la la dikkee citron à la menthe gingembre citron miel ak taaya bi sax wëlawus comme ma koy waxee. citron à la menthe. et gingembre citron miel. ak taaya bi soo innover chaque instant ma nekk ci biir terrain bi tey du ma ñëwee damay defar euh, façon tee bi gannaaw suba ma indi bee gannaaw suba ma indi bee benn jour ma jékki-jékki rek mu ñëw sama teg sama bopp noonu rek ma ne citron alarma congène citron ñeent ak ay misaal di ko way nag waaw di ko way boobu noonu sax baat bi mel ni ma koy way mu jàll ma dem corniche IFA nit ñi gën ko bëgg di ma vidéo di ma posté ma koy def lu ko dalee six heures dix huit heures du soir ba ay trois heures du matin baat bi gën a toj nit ñi gën ko bëgg ma gën ko amélioré gën ci jàpp. am nga xoolee pourquoi ma tourner ak yow émission bi li moo attiré sama attention parce que dañu dajee euh, voilà biñ dajee ñun tam ñu jënd on était entrepreneur ñu jënd mais woy bi nga ko wëyee euh, moo créé moo attiré attention ñu nekkoon foofu yëpp bañ lay filmé tey boo duggee TikTok sax yow euh, star nga daal ci ci wàllu métier. ah ñu ngi góorgóorlu rek. xëy na maanaam nangoo sonn comme li may wax chaque jour waaw bañ a bàyyi dara respecter clients yi ba bañ leen décevoir xëy na peut ci loolu la ma yàlla fekk si xëy na def benn jibo sama diggante client ak benn cofeel sama diggante client depuis combien d'années yaa ngi def lii. war na mat ay sept ans ko jaamu. dama ko. da jaamu. sonn naa ci lool. waaw sonn naa ci lool daj naa ci lu ne yenn saa yi ma fàttaliku ay mbir yoo xam ne dama ci jaar. yan dama euh, taf sama gémmiñ exemple mos naa du ma am magasin Tëngéej jóge Tëngéej yor benn scooter boo xam ne normal bi feu yi leerul exemple benn la ci euh, yi si ma jaar daal euh, feu leerul mais maa ngi jaar autoroute bi ngi lëndëm pour ma accélérer sax fekk foog oto jàll ma doog a accélérer mais ba ma ñëwee ba yegg fi géej ay 22 heures yooyu fekk maa ngi quitté Rufisque 18 heures. ba ma gaaree dama taf sama gémmiñ na man li ma def parce que xam naa ko boobu noonu waaw maa ngi danger boobu noonu am jom waaw dañoo ñàkk fayda ñu jóge ci scooter boobu ba tey yow yaa ngi euh, yoxe sa oto macha allah kenn catuwu la donc at sa entreprise di doxal yore say booy te moment bi nga yor scooter boobu nga xam ne lamp yi tàkk na woon lan nga yore woon lan nga yore juste terme waaw boobu noonu maa ngi doon courte courte foofu jëloon fa benn magasin boo xam ne daanaka pour ma fay ko sax problème la dama koy takkal maa ngi woon ci parfumerie bi laa nekkoon du ma matinal ma dugg def ci dafa am parfumerie tri mais te tollooguñ ci tee bi lañ ma gën a xamee du ma duggee bëccëg bi takkale ba ngoon si ma ñëw defar ak benn soxna bu ñuy wax Xadi Jàllo ñoo tàmbalee ñoom ma bàyyi ko tënkee sama kër kóor foofu noonu après bi sama kër ñëw Euh, est-ce que ça peut prendre du temps nga defarandoo affaire yi wala yow rek yaa koy def wala ak sa équipe bi nga xam ne moo ñoo nekk ci suuf. ci jamono yooyu wala. jamono jii nii. jamono jii moom euh, kenn moo may jàppale. parce liggéey bi dafa gën a sérieux nit ñi xam ko moo tax lépp lu ma ciy def maa koy assister te ki may jàppale moom yàlla ndi la may def ak ay affaire yu ndaw ndaw mais li def yëpp maa koy liggéey. Euh, di ngay def ñaata variété parce que dégg naa citron à la menthe te genre genre ñaar variété bon bari na mais li nit ñi xam mooy citron menthe bi moom moo nekk bi gingembre bi moom moo was bi nag dafa am original was ñu koy liggéeye war warga ak naan am façon toggin mais nit ñi xamuñu was boobu boo waxee dañ la naan was bii lañ wax wala bii mais dama ci xaw a wax ba sonn na leen bii du was ñu ne ma bii lañ bëgg te boobu sawaruñ ci moom moo tax ma def was dama leen wax was citron wala was gingembre mais lii bii tee citron menthe la bee gingembre citron menthe ñeent was warga lañ koy defaree ak nawet waaw. yëpp was bi ñuy defar was moom loolu lañ koy defaree warga ak naanaate dafa am façon toggin loolu mooy was yii nii ñoo ko tuddee was jàpp ni mooy was mais was. yéen a ngi def erreur erreur bi ngeen nekkee nii kii moom moom mbir mi. donc voilà euh, was war ga lañ koy toggee ak naanaa kon yi ngeen di defar noonu yëpp euh, yooyu du ñu was bi mooy vrai was bi alors ça te prend combien de temps pour rek nga defar euh, nga defaral lu ça dépend si programme am programme mu lundi mardi ba dimanche. professionnel nag. ça bu fekkee lundi moom du yàgg bu fekkee aw ma commande du yàgg mais samedi la liggéey bi di gën a bëri yenn saa yi damay tàmbali pare ay dix-neuf heures. ngeen waaw du ma damay yóbbu éléments yi ranger yóbbu leen après man ñëw récupérer tuuti après man dem jaayi waaw vingt-trois bi côté may naan euh, cahier bi cahier programme bi la c'est-à-dire programme bi lundi au kon amoo leen jour de amuñu jour de repos. lundi au H vingt lépp dañ koy liggéey. léegi programme du lundi au dimanche bi comment ça se passe. waaw bu fekkee lundi moom euh, ça dépend lundi damay def yenn saay 3 3 2 mooy euh, mesure citron menthe 3 gingembre citron mais bi mesure 3. ñun ak ñi seetaan réer nañ de dañu réer nii man sama nawle yi di seetaan. exemple citron menthe bi maanaam dafay def mesure 3 mesure 3 day génnee nangami thermos. loolu da ciy yem nag wala li ciy def bu bari li ciy def mooy yi ñu tàngal te mu des tuuti mooy dañ koy këpp bu marde ñu def mesure 4 mardi mën nañ def 4 3 2 mercredi ñu def 4 3 2 bu fekkee amuñu programme lu bari mën nañ koy jàpp 4 3 2 bu fekkee lundi bi xam nga nit ñi dañuy sonn ñu def 3 3 2 vendredi ñu def 4 4 3 samedi bi yenn saa yi bu fekkee maanaam fet la dafay tombeek euh, maanaam lundi bi kenn du liggéeyu yu demee noonu dañuy def sept sept quatre waaw sept sept quatre mooy mooy bisaab bi sept mesures euh, bisaab bi quatre mesures citron bi sept mesures jinjeer bi set mesures samedi da ngay gis da ci yam day jeex. si je comprends weekend bi mooy gën a ëpp li ngeen di def. weekend bi mooy ëpp li ngeen def ci lay gën ngeen di gën a mooy jour la semaine yi comme lu bi dafa metti donc mi ngi noonu est-ce que euh, par hasard dina am hygiène qu'il faut xam naa loolu sax après dinañ dinañ di dugg koy defee mais hygiène bi nga xam ne moo ci war parce que loo xam ne ci biir lay dem. Euh, donc dafa war a laajte hygiène bi nga xam ne moo ci wax est que yaa ngi euh, faral di def hygiène bi nga xam ne. hygiène bi moom bu luñ ci jéem rek xeeb ko hygiène bi luñ ci jéem xeeb parce que xam nga li may wax moom bu fekkee da nga am ay clients yoo xam ne dañu am confiance ci yow waroo leen décevoir léegi loolu noonu nag ñu la ko doon mën a confirmer mooy boy yi may nekk dama leen wax amul juum. loolu laa amul juum day leen sangu ñaari yoon si jour doo génnee dem doo ñëwee da ngay raxasu da raxasu ba set da ngay kilin ni ma ko bëggee dëgg-dëgg sax amaguma moyen yooyu ni ma ko bëgg lu ma ci def rek xet naa ko dañuy gis ne vraiment moom euh, ci li muy liggéey da ciy daal di sol li nga xam ne mooy uniforme uniforme bi fan la la dikkee parce que. Euh, gis nañ ñuy jaay ay ay jinjeer euh, wës et du ñu sol uniforme mais dañu gis ne euh, da nga jël uniforme sol ko solal ko sa équipe mais aussi couleur jaune vert lu tax nga inspiré aussi si jaune vert bi ak lan moo waral uniforme. waaw xam nga jaune vert dafa am lu muy signifier couleur la du fekkee jaune richesse la vert naataange la waa léegi te xam nga mbir moom. dafa am solo ci ngay liggéey ci chiffre ak couleur ak temps ñi fi mën yëpp ci loolu lañuy liggéey waaye nag man yàlla def ma teel a dimbali nag teel ma xam lool lool te kenn jàngalu ma may liggéey ci couleur chiffre ak temps. moo baax. man sama chiffre non bëgguma ko wax hmm, waaw bëgguma ko wax. da ma ko wax sa ah, sama chiffre bàyyi ma bàyyi. doon bu caméra yi fayee. daa ma na ay chiffres yu may liggéey mais man am naa sama chiffre bopp ma mais damay liggéey ci chiffre ba nga xam ne programme bu ma samp chiffre bu baax day génn programme lundi ba dimanche programme bu ma mënti samp rek da ngay gis chiffre yu baax mooy génn impair wala pair ça dépend ça dépend man nag xam nga ci ay defarkatu teelaa waaye mën nga kii si defar tee bi rek <laughs> sànq léegi naa nga ne treize dafa baax ñuy wax nangam nangam mais comme que ñu rek ñun nañ xuus bi balaa ñoo jàll ci leen xam looloo tax yenn saa yi may daw plateau bi dañu garaaw te ñu dugal la foo xam ne. ñun nag kaay mu wax la xam nga boo déggee 7TV rek c'est une télé qui ne crée pas de buzz. boo boo boo seetaanee c'est c'est une télé très professionnelle. donc nous on n'est pas là pour créer de buzz surtout émission bi nga xam ne pour promouvoir suñu jeunesse bi la pour wane ne suñu jeunesse bi dafa daal di dañoo am jom. donc ñoom ay liggéeykat lañu loolu moo tax émission bi tudd góorgóorlu mais tooguñu fi pour le buzz ah le treize lanu loolu daal am na ñu koy wax waaw am na ñu koy wax am na ñu naan baax na am na ñu naan baax d'accord alors euh, nga ñëw ci uniforme bi euh, naka la la dikkee parce que avant peut-être ba ngay commencer euh, commencer woon ci ak uniforme da nga doon sol sa yére normal mais léegi gis nañ ne yaag sa équipe yëpp da di sol uniforme waaw man nag ba may tàmbali man dama mës a organiser yàlla daf ma dimbalee noonu lu may def damay programme waaw parce que maa ngi tàmbalee ci bëla mooy euh, lacoste tri ma gagné benn marché ak benn entreprise benn weeru koor ba ma paree ma ne euh, thermos yi au lieu ma koy jënd damay lancé benn concept bu tudd trité njëkkoon naa ko bind ci yeneen anam parce que man maay dessiné samay logo waaw foofu la mbiri ton dessinateur waaw du ma dessinateur góorgóorlu kat laa rek yëpp damay. moi je t'aime bien par contre parce que boo leen di dégg mu buy wax euh, dangeen di sentir ne yemul rek ci li nga xam ne mooy euh, thé bi ak infusion yi nga xam ne moom lay def mais am na yeneen secret yi nga xam ne ñoo nekk ci biir gis nga tey sama sama caméraman daf laa accompagner ci jaune bi donc Cheikh Sadi bi moom it moo ngi sol yëre bu jaune bu rafet. voilà mi ngi noonu donc euh, euh c'est pas c'est pas donné à tout le monde ngay defar ba pare defar say propre logo parce que nekk na loo xam ne. infographie ñoo koy defaral seen bopp yow euh, nga ne yow yaa defal sa sa logo ak sa lan waaw logo yi maa koy defar aussi tamit yenn saa yi may defar lu dara maay joxe design exemple ki may ñawal ñu koy wax mbay mbay euh, mbay Fall bi ngi nekk jotaat bi. su fee en gros coucou mbay. waaw mbay mu ngoog waaw moo may ñawal affaire yu bari fii moo moo koy defar dama koy wax nii ak nii laa ko bëggee defaral waaw mu yëpp moo ko ñaw. maa ngi lay dégg nga ne gagné woon nga benn marché ak entreprise donc ça t'arrive des fois nga liggéey ak euh, entreprise wala ay traiteur wala. waaw loolu très rarement waaw loolu kii la exception la rek parce que bugg bëggaguma ko léegi dama bëgg a mbapat ba ci kanam. dama bëgg a mbapataat ci kanam parce que li may samp dama bëgg mu dem éternellement samay sëtaat di ci jariñu sénégalais yu bari di ci jariñu yeneen i euh, askan yeneen i réew di ci jariñu. allah loolu am na importance mais aussi dañuy gis ne ab euh, Sénégal chaque jour ak programme buy xew mu dul ngénte di baptême bu dul baptême aussi di événement euh, religieux bi wala mu nekk tabaski wala korité donc euh, est-ce que ça t'arrive des fois benn nit personnellement bu la xam ne dama bëggoon nga defal ma ay infusion waaw loolu dinañ ma koy wax duñ ma ko waxee damay dama koy dugalaale si sama liggéey après jox xam naa nag bariwul parce que tollooguma ci loolu pareeguma ci dugg carrément ci ci wàllu woowu. daal sa liggéey c'est-à-dire euh, nombre bi nga doom defar ngay defar rek jox leen wala j'ai pas exemple du ma waree def euh, sept sept quatre nga dugal sa programme waaw euh, muy samedi xam nga dafay dafay metti ah damay xool mun naa génnee sept set quatre yi yenn saa yi booli yu mag yi ma yor da ci yem nag day doon vingt huit pots. su ma ko nattee mooy set set yooyu noonu day yem nekk ci bool yu mag yi nekk fii doo ciy dolli benn pot da ngay gis day fees léegi nag damay xëy programme ñooñu defaral leen seen mëgir am naa bool yoo xam ne nii programme yu yem la ma defal leen après jox la samp programme surtout euh, nit ki nga xam ne dafa organiser wu man li ma li ma gën a neex ci yow mooy sa organisation bi nga àndal ba tax na aussi euh, Euh, amoon na lu ma la bëggoon a laajte pourquoi yow nga ñëw euh, fii Médina euh, def fi entreprise fii nga juddoo wala fii nga yaroo wala yow yaa am sa choix porté ko fi Médina. waaw Médina fii laa yaroo moo tax lépp lu may def dama koy bëgg a def fii ci Médina parce que Médina rek laa am moo tax ma def ko fii rue sept waaw diggante corniche ak siis bi ci digg bi. ñu daal di ñëw gis ne si suuf fii la magasin bi nekk donc euh, am na kenn ku fa nekk koo xam ne moom du déplacé wu kon ki ñu jot a interviewé moom nee na foofu rek lay nekk moom il se déplace pas xale yi daal di déplacé wu mais bi ñu si kaw gis nañu fii nga xam ne mooy sa bureau gis nañu également feneen fi nga xam ne spécialement euh, foofu ngay defaree affaire yi at ak beneen ruq bi nga xam ne waañ bi la donc comment tu peux m'expliquer ce ce entreprise bi comment il a été créé l'entreprise tu du moins nag nga ko créer wi at lan moo tax nga def ce choix nekk sa bureau defar ce point pour defar bi ak feneen euh, waañ bu trois pièces bi yàkkamtiwuma man mais damay anticiper dama leen wax yàkkamti ak gaaw bokkul sama élément yi dama leen naan nit dafay rapide mais bu yàkkamti xam nga doo yàkkamtiwul rek loo gaaw gaaw li ngay def di xam te yenn saa damay anticiper xam nga yaa ngi ñëw dama ci bureau xam parce que dama lay sóor mooy suur loo xam ne ñëwagul man fii ak deux ans et fan ak un an ak suba bëgguma lu ma bett waaw moo tax toujours rek damay préparer wu taxaw ba fuñ ma woo comme na ma ko waxee woon rek pale sax buñ ma woon léegi am na matériel yu ma ko yóbbu yoo xam ne duma jël avance mooy liggéey ba pare ñu fay yooyu yëpp naa ko mi ngi. alors comme que liggéey bi. dafa daal di bari mu nga tasaare ko macha allah ak xale yi naka ngay xamee ne xaalis bi nii la toll wala mat na wala xale yi ndax des fois ñu ñu def la yëfu mu andi wala naka nga xamee wala euh, euh, thermos bu nekk xam nga ñaata verre ñoo fay ñaata goble lay jël. xam nga dafa am ay cote yu may xamee na ci liggéey bi bari na lool exemple programme bu ne nombre de thermos yi muy génnee. cer moo fa gën a nombre de taas xam nga doo ko multiplier da ngay am chiffre bu fekkee géej cassation si suuf xam naa chiffre d'affaires bi muy génnee lundi mardi mercredi yenn saay du koy ëpp tuuti la koy ëppee du koy yées tuuti la koy mathématicien yi non non dama ci yàgg ba pare liggéeyee ko jaar maanaam liggéeyee ko côté bu ne côté bu ne parce que li ma leen di sant yëpp def naa ba def ñoom lu ñu lu ñu ci luñ tolloo moo tax lu ñu def rek damay xam ne lii pare méthode bi ñuy jaay foofu maa ko indi foofu maa ko maa leen wax ñi ngeen di jaay ñi ngeen di defee ñi ngeen di defee ñi ngeen di dama comprendre ba pare xale yi may liggéeyal euh, may yàlla may na ma chance ma am xale yoo xam ne ñu dégg ndigal la jub lu bëgg a baax te man toujours dama leen di tàggat dama leen naan fii nit dina fi amee xaalis waaye nit dina fi war a mën a xamee yàlla loolu dafa important trop ci nit ak yu damay waxtaan ak ñoom di leen wax àdduna boo ci bëggee réussir ni ngay def doo ko defee da réussir par la force kenn mënu ci dara foog defee lii da réussir kenn mënu de de de d'hommes de jeunesse parce que euh, ñoom ay jàmbaar lañu non seulement ñoo ngi liggéey. Euh, moo ngi nekk ci li nga xam ne mooy waar bi mais moo ngi aussi euh, sensibiliser rek li nga xam ne mooy xale yi pour rek ci seen liggéey non seulement ci jub bi ci gëm yàlla bi aussi ci le travailleur bi nga xam ne xale yi moom la ñu war a doon mais aussi gis nañ ne carrément que xale yi dañu mën woy bi donc bëggoon naa xam exactement comment ça se bu ñu ñëwee da nga leen di former répéter loo leen moo la ba <laughs> man mi sax ko gën ko mën sama équipe. xam nga mbir dafa ànd ak ndimbalu ak taw féexam doo ñëwee doo dugg see rek li li yàlla day def man li ma bëgg ak ni ma ko bëggee da nga koy mën loolu ndimbal la ak taw féexam parce que am na si ñoo xam ne avant ñoo ñëw fii répété nañ ko bu yàgg parce sama sama sama village lañ dem Ngoye Mbayar dooy dem Diourbel wàcc doomu ci àll bi ñoom ñëpp. samay mbokk lañ bokk même village léegi nag am na ci ñoo xam ne ñëwaguñ mokkal nañu woy bi dañ koy woyantu léegi nag doo ñëwee dama la naan nii ngay def nii nii nangam nangam après nga def dafa am benn pédagogie bu may defee ñoom ñoo xam ne deux jours doo ko defee danga pour man danga war a mokkal nga loolu mën na impossible. timidité. non non même du fekkee da nga timide sax liggéey bi du jotee maanaam danga koy def nii mu waree. ak li muy laaj da nga koy def parce que liggéey la. ñu dégg ci sa wax nga ne ñoom ñu ci ëpp sa village yi ñu liggéey donc yow say mbokk rek ngay liggéey. ñeneen xam nga mbokk moom mooy ko bokkal pas-pas ak ku gëm li ngay wax ak ku la nangu loolu la. Euh, déjà buñ ñëwee yow yaa leen di héberger wala ku nekk da maanaam waaw. comme euh, euh, niñ koy defee saa su ne euh, ci suñu émission góorgóorlu voilà dañuy faral di dajeet ku ne donc gis ngeen ni tey nalaa mi nga xam ne moom la ñu dalal ku am jom la mais ku bëgg lu muy def mais aussi ku engagé wu la ñun ñii la ñu soxla ci suñu jeunesse bi jeunesse yi boo leen meloon nii rek. donc duñu soxla di jëli gaal wala sax duñu soxla di euh, def naka su dul noonu lu ci mel ni euh, rek euh, agression wala sàcc wala def yenn yi nga xam ne ku la ci gis rek du la daal di naw émission bi buñ jógee li nga xam ne mooy interview bi dañuy daal di ñëw ci daal di xool nan laat naka la avant ñuy daal dem sur le terrain. voilà Cheikh kon ni ma ko waxee tantôt nee naa leen liggéey bi du si bureau bi rek du ci suuf mais aussi am na fii donc euh, matos si nga xam ne euh, moom lay defaree bagage yaa ngi nii mais fii aussi salle de réunion la pour équipe am ñi ngeen gis ci suuf bu ñu waree réunion fii la ñuy réunion mais table yi aussi table exposition la c'est-à-dire bu waree présenter li nga xam ne moom lay jaay donc euh, nan lañ koy waxee tungu na du teew ñu koy nataal donc damaa bëgg nga waaw fii nii yenn saa fii laay dajale xale yi du ma amee lu may waxtaan ak table yi nga gis du ñu waree génn ay démontable la moo tax ma rangale ko nii pour mu ordonné bagage yi du ñu waree génn maanaam dem fenn programme yenn programme yoo xam ne du terrain ah ay réception et cetera ci yee bagage yaa ngi nii yii genre sac la yoo xam ne nii euh, sac pour te euh, froid bi la quoi dafa am. waaw bu sedd mooy butéel yi moo ciy rangaloo du seddee si lañ koy rangale exemple. fii lañ ko defaree. waaw lii menuisier moo ko defar kii mbay moo ko defar. waaw waaw moom moo ko defar nii quoi. mooy kii ñaw même en temps. ñaw tenue quoi. moom moo may ñëwal lépp quoi. lii pour loolu quoi pour froid bi la. bi nag ñu ngi ci kawam. dina génn bientôt incha allah. donc euh, bi euh, li ci nekk ci biir. Euh, bant la à plus euh, tissu mais xam nga am nañ euh, magasin bi am nañ benn frigo bu mag bu fa nekk léegi waa si suuf léegi nag bagage yi comme yeeg egg bouteille yi duñ tàmbalee fois yi la ñuy utiliser exemple nit du ko bëggee ci programme am dañuy jël bouteille yi rangale ko nii léegi sur mesure la duñ ko ci defee yëpp da ngay gis da ci yem nag ñaata bouteille exemple mun na def mun na def six wala neuf ak kaas yi fi ñuy dugg da ngay def fii trois fii trois xam nga muy six nga def fii ñaar def wala nga defaat fii nga def fii kaas yi sa dépend ni nga ko ramee mën na doon def neuf ak kaas fi muy dugg mën na def lu ëpp loolu du fekkee kaas yi donc koy ref fii quoi douze man j'aime bien euh, bi en plus nit ki moo koy yore nii. waaw nit ki moo koy yore nii wala mu yor ko nii aussi. très bien. léegi yii aussi. Euh, yi ay kaas la euh, pour naan walla leneen lu tàng rek lu loo ñu loo ñu commandé. c'est sur place. c'est sur place. ay thermos la yoo xam ne nii maanaam ñu ngi ci biir paquetam yi ay thermos la yi ay mixeur la am na lu ñu ci xalaat les barba papa la am na lu ñu ci xalaat noppeeku ci yi ay plateau la yi ay kaas la yi ay plateau la yi pour sucre yii pour mouchoir yii machine buy wal bii machine bul buy wal jinjeer la bii mooy bi nekk ci kees yii ay euh, kees la yoo xam ne ci la ñuy yenn bagage yi nga xam ne euh, du ñu bëgg mu génn wala xam nga a dara bi quoi. kon li nga doon wax euh, yow da ngay préparer avant voilà da ngay improviser. voilà et puis da ngay préparer loo xam ne ñëwagut. tu es déjà prêt comme li nga doon wax tout à l'heure même pare bu ñu la fa woowee di nga am matériel loolu leer na. alors euh, nañ xam également voilà bii pour lan la lii. lii ay euh, xaaral lii ay euh, ay fourneau la ay bec la ay bec. yëpp fii lañ ko defaree. góorgóorlu am ngeen ay gan naa leen ci. ay bec la gaz yi mi ngi ma roof ci biir exemple gaz yi ngi ne. du ma amee exemple programme bu jéggi dayoo boo xam ne nii exemple ñëw ñëwandoon ma jox programme boo xam ne bu rëy rëy yi day génn ak bool yi ci kaw bool yi laa lay wax ni doo ci desee po po yi may utiliser bu matee vingt-huit po day day carré day net loo ci yokkee beneen po sax day tuuru mooy ci chiffre bi ma lay wax ni moom la ñuy liggéey. Mhm. gis nañ fi également ay ballons pour mesurer la même également po yi pour mesurer la. donc balance yi mooy euh, chaque semaine yi ngay def mais ñoom ñaar dafa mel ni dañoo wuute de. waaw bokkuñu xam nga bii balance bi exemple du fekkee tey euh, da nga war a jël euh, saaku limon buy def cinquante kilos bii dina ci mën a dem wala saaku suukar mais bële bi am pot bi munu ci dem boobu noonu part kilo exemple dix kilos cinq kilos exemple nangam nangam nga jël ko bëgguma lu ma bett daal. yenn saa yi ma jënd bagage yoo xam ne sax utiliser gu ma mais damay jékki-jékki rek soxla ko rek génnee ko. buñ ñu ñëwee également ci po yi nii euh, yi nga xam ne par litre la yii ngay naan boo ko defee vingt-huit ci day natt wala. du pot yi pot yi yeneen pot la. yi yooyu yeneen pot la mhm. waaw. yii bi bii yeneen pot la yii am na lu muy liggéey nag quoi. waaw lii am na lu muy liggéey waaw. bëggoon xam exactement. comme pot boobu mën naa ci nat par exemple bu fekkee programme bu ndaw laay laay def bool yi pot yi def ciy xaj ba pare la ciy neex ba pare dooy tibb maanaam danga koy jekku ba pare aussi du may segg jinjeer bi pot yi def ci neex waaw dafa fa dafa dafa may faciliter liggéey bi quoi façon pot yi am na lu am solo lu muy liggéey ci lu muy def ci liggéey bi. boîte xam dañ cee def sa sa waaw. point yi nag ndeysaan moom laa njëkk a tàmbali ëppoon na lii sax. lan la lan la. ay point de vente la woon yu ma tàmbali woon waaye xam nga bant la te xam nga du fekkee du wóor carrément ci laa ko comme ni style bi am na beneen dépôt boo xam ne dama fay jant ay bagages am naa yu weñam comme yii yooyu dama ko wéer créer yeneen point jëlaat yooyu wéer créer ay points yoo xam ne boîte la mu ngi ci suuf da koy téye nii gaz day nekk ci biir euh, baraada bi day nekk ci biir bec bi day nekk ci biir doo paree tëj doo dooy tijj da ngay tijji six mun na tegu ci kawam doo paree tëj dugal affaire yi gàddu dem loolu genre boite la loolu mu ngi ci suuf boy yi fu mu nekk moom la ñuy liggéeyee. am na sax ay affaire ay genre photo yu nekk fële point yooyu noonu photo naa ko def ko ay poster yu rafet yu ndaw mi ngi fële. alors sa début euh, ña ñaata nga débuté woon. sama début pour wàllum tee bi wala pour sama wàllum business euh, waaw wàllum tee bi mooy li ma la waxoon mooy ba ma paree ci euh, mars waaw boobu avant jamonoy moto bi. ci marché boobu noonu boobu fekk na ma gañe ko marché boobu dama ma paree as tuut bi ma ci am daanaka lu bari yëpp dama ko fayee matériel yi rek laa dese woon ma tàmbali ci nag xam nga di jël yenn genre te yi nga xam ne nii bëgg naa def comme ñoom ñi nga xam ne dañuy paqueté di def infusion maa ngi ci liggéey yooyu ma ci li tax li tax mu xaw a yéex mooy lépp sam fonds propre la lebuma banque kenn joxuma xaalis moo tax samay mbir du ma ko yàkkamti moo tax muy xaw a yéex te man dama gëm ni liggéey rek ma ma ko mën a jox waaw liggéey rek ma ko mën a jox moo tax may def nànk-nànk piano piano petit à petit l'oiseau fait son nid comme on a l'habitude de le dire maanaam ndànk-ndànk mooy génne mooy euh, jàpp golo ci ñaay olof di njaay di wax donc euh, avec temps euh, donc yeneen entreprise daal di ñëw en tout cas lii rek ça encourage pour vous dire que y' a pas de sot métier pour yéen xale yéen yéen ñi ngeen xam ne da ngeen choisir métier sans métier non blanc boo leen ko gisee muy wëy da ngeen di foog ne leneen la mais boo leen ko fekkee nit balaa ngeen koy gën a respecté fekk ko fi mu dëkk wala fi muy liggéeyee mi ngi noonu ba tax na ñun dañuy daal di ànd ak yow ci suuf wàcc voilà gis ni ngay doxalante xale yi ndax heure liggéey bi jot na ñoom it war nañoo dem sur le terrain. waaw ñoom duñu ñu a dem sur le terrain ku ci nekk xam nga fi nga war a dem du ma ku ci nekk dama la naan diw ana géej ñu ne ma mën leen leen ñoo ñu jël quelques termes yi ñu war a jël jiitu Ibra acca lal kii nangami kaas paquet génnelal kii nangami paquet kaas génn mooy booy bi ngay wax mooy caab bi mu génnee nangami paquet kaas ma ana bu diw mu ne ma mi ngi ne ana bu diw mu ne ma buy njëkk a ñu ne ma ne ko am caabi bàyyi ni caabi oto bi mu dem ranger ma ne ko fexeel ba bul juum te li ngay def na ko xam bu wér après mu tàmbali nag non napp ma leen dañu xam ni kii naxuñu xam nga nit nit la nit noo ñëwee ci moom rek noonu la koy jàppee dafa xam dañu xam ni kii naxuñu te considéré nañu waaw loolu dafa important. boo liggéeyee nit considéré ko day tax mu gën a am amour ba pare day tax mu gën a sawar ci li muy def ah, des fois ñoom dinañ wàccee ñaata à peu ñoom kenn ku ne ci lan li ma leen di may wala duma koy faral di wax waaw duma koy faral di déewaate ñi ma koy faral di wax mooy ñi may woo pour liggéey ak man di ma jox somme yu ndaw di ma proposer somme yu ndaw ay 15 millions ki 20 millions ma ne leen man xeeb naa loolu parce que li may am chiffre d'affaires man li may fay fii maa ngi fay 430 mille par weer xam nga kooku doo koy proposer danga koy proposer lu am maanaa man ay objectif yu mag laa yor pour sama réew te képp ku ñëw bëgg ñu liggéey ak ku mënti doon indi milliard doo ko tegee ci taabul bi ma wàññi chômage ba mu wàññeeku ba ñëpp teg ci seen bët du ma ne dinaa ko def te mën naa ko laay wax te dama koy confirmer ku ñeme doo indee milliard teg ci table bi xaalis du jaar sama loxo ma wàññi chômage ba mu wàññeeku. xam naa ne ministre de la jeunesse monsieur Ndour dina la woo bu ko defee dina la recevoir moom ci biiroom waaw parce que euh, jeunesse bu mel nii la ñu daal di soxla te moom euh, day seetaan euh, rek li nga xam ne mooy góorgóorlu chaque jour ndax yéen rek lay topp. musuma adressé nit ci télé monsieur Ndour ministre de la jeunesse yaay borom yaay yow lañ dénk wàllum jeunes yi doo tegee milliard ci taabal bi duma ko laal. ma xaaj chômage Sénégal dinaa ko def waxuma mën naa ko def dama koy def ñëpp teg ci seen bët waaw loolu laa koy wax. en tout cas ça ça bien il gagne bien sa vie macha allah ba tax na dañuy ànd ak moom naa laa man moom rek laay toog moom kese parce que jàmbaar la liggéeykat la te émission góorgóorlu jàmbaar yi liggéeykat yi ñoom la ñu soxla suñu biir góorgóorlu pas ñeneen ñi ñi nga xam ne ay flemmard lañ nag di tëdd di nelaw ko yeewoo rek di ñaan yaay may ma ñeex yooyu merci beaucoup que muy góor jigéen que muy mag que muy ndaw ñun yéen rek la ñuy toog ba tax na dañuy ànd wàcc si suuf bu ko defee ñu jeexalee foofu émission bi Cheikh bu baaxee rek ñu ko ah, voilà comme niñ ko ah, mooy euh, rek Euh, ba may tàmbali tout à l'heure ñëw naa fi présenté naa xale yi bu nekk mais aussi moom dafa daal di am euh, méthode bi nga xam ne noonu lay liggéeyee ak ay goneem ak équipe am euh, donc na la nan nga ñu mën a expliquer exactement si ñoom nu liggéeyee ak nekk. waaw comme par exemple kii Mamadou la tudd ak Babacar ak Cheikh ñoom ñooy dem géej passation de kii moom xat yi moom mooy dem rond-point bi kat kii mooy dem parking bi nga xam ne moo mel ni yow maa ngi daje woon. waaw ah, foofu lañ daje man fa nekk euh, vendredi samedi dimanche yenn saa yi euh, vendredi samedi parce que des du fay bari nit lool moo tax nga leen di. waaw du waaw du fekkee de temps en wala fête am wala férié wala dara quoi wala ma jékki-jékki am envie rek solo rek def. alors ça euh, ngay liggéeyal xale yi xam ne ay tànk lañ mais aussi xale yi am jom. waaw am jom am fulla gëm ñuy def ba pare jóg yaru dégg ndigal ku la neex yow kaay dafa mel ni yéen a gën a yàgg ñëwal fi yéen euh, naa laa moom il bi mel ni koo xam ne yombut a liggéeyal yombut a liggéeyal moom wante compliqué ko dëgg fa yàlla li gën a neex ci euh, méthode de travail bi ngeen déedéet moom xam naa jub rek moom si gën ne ak nekk tegu si yoon rek est-ce nekk si en tant que jigéen yow kese ndax muy féete rek laa siy jël waaw jigéen ñi ñun comme que ñu ñeneen dañu compliqué léegi naa yow yaay buum yaay buum yaay joxe ordre yi daal ñuy dem maa duñ la fi nekk des fois di la napp. maa leen di napp xanaa féministe man buñ la nappee rek wax ma ma xeex man. waaw d'accord merci beaucoup. ok merci donc euh, moom le plus petit. noo tudd Ibrahima qu'est-ce que ça te fait na liggéey ak la nax yaa ngi question mais bu ñaar waxee rek c'est xam naa da di yuuxu seen yuuxu boobu rek chanson hymne nationale bi ngeen xam ne euh, Sénégal ñaar ñëpp ko bëgg Citron lamont, e jenjen fikon miel, ataye bisop, wala wos. ñuy seetaan tamit maa ngi leen di bëggee waat mooy client yi nga xam ne ñoo ci jàpp di wax xale yi nag secret bi ñaar rek la nangoo sonn ak jub. alors gis nañ ne da utiliser gaz lu bari. waaw damay utiliser. mais temps yi total ñoo ngi sensibiliser pour euh, ñi nga xam ne jot nañ fa jënd gaz ñu daal di fa euh, problème de de fabrication ak euh, fële nga xam ne gaz bi bi explosé woon na fa am ay nit fa génn àddina lan ngay wax ci loolu noonu lan ngay sensibiliser ñi nga xam ne dañuy utiliser. waaw ñuy utiliser gaz nañ ko xam comprendre ko te prudent te moytu te liñ ciy def lu ñu waree tëj lu ñu tëj. ba mu wóor leen ñu tëj waree tijji tam ñu am luñ koy tijji ba pare fi ñuy liggéey bu fekkee dañ koy tëj waaw loo xam gisee muy xeeñ tamit ibbi leen fépp ngeen bàyyi ba mu aéré ba xet bu dañ ngeen doog di taal ah, donc aussi ñu daal ñëw ci jeunesse bi parce que euh, gis nañ ne même bu nekkee du léegi nii gis nañ ne manifestation yi euh, xale yi ñu ngi génn di topp di yàq ñuy liggéeyu ñeen ñi di ci dugg di def naka su dul yow lan ngay conseiller jeune yéen yéen a tolloo même âge rek ay jeunes nga comme moom te nekk jeune bu am jom xam naa ne manifestation bi yow bokk si dem di toj yaa ngi sa entreprise di euh, xale yooyu lan nga leen yàq seen alal daal naa la rek laa bëgg moom laay topp donc euh, c'est toujours un plaisir dalal euh, suñuy ay nit ci góorgóorlu mais man góorgóorlu bi tey dafa daal di spécial ci ah, parce que benn jeune bi nga xam ne euh, moom dépendre ci kenn yore entreprise am ay ndaw ñu daal di ci liggéey Euh, ku nekk loo ci am rek nga jëriñoo ko euh, ku nekk loo ci am dimbale say euh, waajur donc loolu c'est important nee naa leen ñii la ñu war a jàppale ñii ñoo jar a jàppale parce que ay liggéeykat lañ boo leen jàppale ñu demal seen bopp boo leen jàppale wut ñu demal seen bopp ñii ñoo jar a encouragé tey nag ñoo nekkoon fii nga xam ne muy Médina rue 7 daal di tourné ak Nala ñu gën ko xam ci Walweuse donc mi ngi noonu bu am job bu nangoo liggéey bëri nag li nga xam ne mooy projet mais aussi bu bëri li nga xam ne mooy bëgg-bëgg ci wàllu réewal di ko jaajëfal bu baax a baax mais nag bu ma jeexal te euh, nuyuwuma samay partenaire ku ci mel ni Cheikh Sadibou euh, sama caméraman sama doom la sama xarit euh, mais nag lépp lu rafet ci image yi moom moo ko daal di filmé accompagné mooy assistant wam mais ki nga xam ne aussi sama doom di Gora lépp lu rafet ci montage bi rek moom moo ko monté yi nga xam ne wane nañ ko lépp moom moo ko daal di monté di jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne dañuy seetaan un peu partout dans le monde Euh, di ñu jaajëfal euh, di ñu encouragé également bëgg lool li nga xam ne mooy góorgóorlu saa yu jeexee rek ñu daal di recevoir ay a euh, di leen jaajëfal di leen jox di daje ba beneen mercredi si beneen émission ak beneen ndaw bi nga xam ne moom la ñuy daal di dalal si góorgóorlu sur ce prenez soin de vous à la prochaine ñu daal di yuxuwaat appel bi si toi la monte échange ataaya bi soog wala wës